Mm-hmm.

suñu rek ko waral lu mu mu jëf la mu jëf ngir yàlla moo ci gën mooy lu ci gën a am solo jaam boo xam ne yëg bi nga sa teddu borom ak kattanam ak mën ak yërmandeem ak xéewalam ci yow ak ci li la loolu tax seq benn jéego jëm ko foo jëm foo xam ne yaakaar nga ne da nga fa dolli koo dolli ko boo di la ak alaxira sallallahu alayhi wa sallam dafa ne mboolem daje jullit ñi daje te fàttali wuñ fa yàlla julli fuñ ci yonent ca daje ba ak perte lay doon ba nga xamee ne jaam bi mu ngi waat jóge ci kër gi di dañ lépp lu fi nekk di dañ daam di waaj fas fi yéene jóge ñu di ko wan fépp fu mu jaaroon ak lépp lu mu defoon ak lépp lu mu fasoon ci xolam dóor yooyu bokk ci li gën a woyof fi nun defe ne amul solo sollikuwuñ fa ci lenn béréb dana bokk ci gas yi gën a metti boo xam ne doomu aadama bi dana ko jooy dana ko naqarlu dana ko rëcc jóge xam ne lépp mu sonne woon ba am ko fi dana ko fi bàyyi keneen waxtaanee rek mu ngi de bopp loolu ñu ngi de ñu xuus ci seeni ñaq bu jiitu bis booba jur bu yàgg nit ki dana ko tëdd ci bàmmeelam waaye boobu mu tëdd ci bàmmeelam mën na neex mën na naqari mu ngi neex ci ku matul woon a fàtte fàttaliku ci def sa xel mu naqari ci ku ko fàtte rek diwee ba waxtu mu ko tàmpale namul muy kër go xamné day rap dara do fi nek feet dig ba ñëw da tax mu sant jam yi nañu liggé aduna bi ngir nam ci alakhirah liggé bi ñu liggé aduna yéene ji rek ci am solo boo da tabaxal sa bopp kër nga yéene dëkk ci di ci jaamu yalla boo fi jógee kenen ku ci dëkk danañ ko dox ba agsi fi lu fi nekk ci xéewal ku ci xéewlu ci ndox mu muy naan ba ci ker muy taxaw lal bu muy toog nga yéene mu di jaamu yàlla mu doon ak jaamu yàlla saxaaba yi noonu lañ defoon dañoo liggéey woon àdduna ngir am àllaaxira ba tax ñu xeexoon ñu tàmbalee màkka ba ci sunu géej gi ñu tuddee océan Atlantique xeex ngir dugal ñi ci lislaam xam ne xamuñu ko te ñàkk foo xam gi daf leen di lor xam itam ne ñi dox diggante nit ñi ak diine bañ ñu tuub yéefari màkka yi ñu ngi jàpp ci loxo yi nit ñu di leen xëcc ci jëme safara ñu bañ loolu am suñ borom sant leen ñu xare ñu dale foofu moom Espagne moom lu bari ci itali moom lu bari ci France walbatiku dikk bi moom Afrique du Nord walbatiku jublu penku ba ci réew yi nga xam ne yëpp lislaam àgg na fa bari ci ñoo xam ne amoon nañu ay million million def ko ci yàlla rek toog rek di xaar yàlla doyloo yàlla def ko muy seen alal di seen wërsëg di seen am am di seen lépp lu ñu noonu la ñu war a nekk ci àdduna bu ko defee bu ñu rëccu lenn waxtu mu ñu deewee bañ koo fàtte nag ci la tàmbalee bañ a fàtte gi tam li koy waral mooy fàttaliku gu bari fàttaliku gu bari gi lu mel ni béréb yu ñu toog te lu ñu fi tax lu dara lu dul ngir yàlla ak yonent bi ak fu ñu yaakaaree lu baax buñ fi jógee dégg fi loo xam ne lu toll ne bën bënu pusa ci fàttaliku yàlla ci yëg kàttanam ci fàttaliku ëllëg jóge ni ci jataay bi dugg ci suñu xol daanu ko gërëm waxtu wu ñu génn àdduna daanu ko gërëm waxtu bu nekkee suñu bàmmeel daanu ko gërëm waxtu wu ñu dekkee jëm ca bis ba ñun nag daam lu gàtt lay nekk ci àdduna lu gàtt a gàtt waxuma aljana ku fa dem wala safaan ba nga xam ne doo fa jóge ba mukk waaye bar sax rek te mooy diggante fi nit ki fi ñu ko defee ci bàmmeel ba fa ñuy dekkee kenn xamul ñaata junni at la suñ borom rek boo ko xam tabaraka taala ndax leen laa taatikum illa baxtatam saa buy taxaw day bett nit ñi rek amul benn màngar bu nu xamal ne ëllëg la saa di taxaw wala tey ci ngoon la saa di taxaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana fekk nit ñi wàcce piis diko ko duñu agalé gis ko tabax mbalkan bay raax du agalé ñu ëf bufte bi ci digënté bi xam ngeen ne wax nañ ko ba tàyyi ci ay waxtaan li tax deewu bet ñu bari rabal ragal ko ñu dul xam fu mu fekk sa xol tollu fa te يحشر يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما عاش عليه على ما مات عليه نبكي melo wu mu dee buy dekki ci melo woowa lay dekkee réew mi nu nekk nag di Sénégal suñu borom def fi lu mu deful fu bari ci réew yi jullit ñi boo fi jógee réewum jullit moo dem mu ci réew yi naay wala ci réew yi dañ làkkat li ngay gis ci jàkk ci Sénégal doo ko gis ci benn liy daje ci mbooloo ci jàkka ju nekk ci Sénégal doo ko gis ci beneen réew ngëm gi ñu gëm ba képp ku yaakaar ne am nga yàlla ñu xër ci yow attan laa jox seen lépp ngir jëmm yàlla boo génnee Sénégal bala nga koo gisati daanaka doo ko gis te nag ah ñi fi nekk ñu du leen ay sëriñ maanaam ñi fi nekkoon ci jamono yi weesu tënk nit ñi ci lislaam ba leneen lu fi ñëwit woote leneen lu mu doon lu dul lislaam duñu la wuyu murid yi boo leen wooyee ci lu dul si Ahmadou Bamba duñu la faale tijaan yi boo leen wooyee jëme ci Alaaji Malik Abdoulaye Ñas ak ci topp duñu la wuyu xaadir yi boo leen wooyee jëme ci lu dul si Abdul Qadir Jilaani Cheikh Sadibou ak ña ci duñu la wuyu loolu nag nit yàlla yi la ko suñ borom def ci ñoom ndax dañ ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahmatu gannaaw buñu leen dee waxtaan rek yërmande yàlla day wàcc suñu boroom moo def loolu ci ñoom boo seetee kattanu barke gi ñu donne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi ne ci ñoom moo tax nit ñi gëm leen te tey ñu ko bépp xol bu war a texe xol boo xam ne boroom war na texe dana la gëmloo waaye yàlla boo ko weddee bu fekkee ne sëriñ bi mat na sëriñ nga ziar ko waxtaan ak moom boo seetloo sa bopp boo fa jógee da xam ne am na lu soppiku ci yow. dañu ne sëriñ bu mat sëriñ boo ko ziaraa ba jóge fa ñeent fukki guddi daañu la ko baal ñu yëkkati xalim ak bàkkaar duñu la ko bindal lu koy waral tooyal gi mu tooyal sa ci yàlla mu des ci yow. sëriñ bu mat sëriñ boo ko ziyaara ba jóge fa ñeent fukki guddi daañu ko baal ñu yëkkati xalim ak bàkkaar duñu la ko bindal lu koy waral tooyal gi mu tooyal sa xol ci yàlla mu des ci yow nga di ko fàttali ko balay wowati nga gisaat ko wala nga gis ku mel ne moom loolu bokkul baatin bi ndax sëriñ ñetti xeet la cheikhu taalim شيخ التربية أب شيخ الترقية الشيخ آه، أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه آه، وانا كنت حكم حكمة الشيخ لغا خمنا نك مويسين بغ تي لالا لين أسلف تي مام شيخ أحمد الكبير بغ جن كلال بغ جن كلال وائنك mën naa tàmbalee ne leen ci du ku ñuy waxtaane ci mbooloo suñu borom dafa bind awliyaa yi ñu mel na toolu jardin boo xam ne fleur yu bare ca nekk bu nekk ak couleur am yii day verte te àgg ci dayob rafet yii xonq te àgg ci dayob rafet yii bleu te àgg ci dayob rafet yii weex te àgg ci dayob rafet booy si njëkk a gis rafetaayam léem sa xol couleur ba mu amee nga jàpp ne ñi couleur bu melatul noonu rek rafetul fekk na du noonu muy wax léegi mu di alhaji mbay ak Cheikh Lo laalal nañ leen tuuti ci moom loolu yaakaar naa ne war na leen a doy <laughs> bu leen doy sax dara doy leen ci waaye benn nit boo ko mënul a seede am na yoo xam ne boo koy wax ci moom da ngay gêné te mënuma koo seede waaye yaakaar naa ne ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñëpp jëlee nañ ci moom lu doy a dégg ndax sëriñ liñ koy doyee sëriñ liñ koy doyee moo di ruuguy wat traayu bàmmeel bis pénc ba mu ne wàlli yu bari suñu borom bàyyi na leen ñu fàttee fàggul seen ñoñ sukuraat su metti man suñu borom fàttali na ma ko ba ma fàggu ko taali bu bu ci man buñ lay yoor ci bàmmeel maa lay awu li ñu mën a wax nag bariwul li ñu mën a wax bariwul nee ni ma demee ak sama borom mu mel ne nit bépp demee ak baakaande ba bépp ak la cay génne loolu da xam ngeen ne daanaka kenn mënul ne benn la waaye sorewuñu nga du àgg nag am na ñu fi ñëw ñoo xam ne ci lislaam dañoo am ay lënt yu ñu yaakaar ku leen ko leeralal buñ ko laajee bu ma ko yàlla xamalee waaye ñoom it ma laal ci as lëf ba it li ngeen di laaj it waxtu ngeen laajee laaj ci li ngeen bëgg bu dee loo xam ne ah, am naa jàpp ndik mën ca tontu danaa ca tontu waaye xam ngeen ne suñu borom day nëbb na lu bari nëbb na lu bari feeñal tuuti lim feeñal ci tuuti lépp nëbbati nit ñi fees na seen xol waaye tuuti la ci yàlla ndax tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye tuuti waaye yàlla moo xaj ci ci taalibeem yi kon nag ñu laaj bu fekkee ne am na ay ak rek yoo xam ne daañ ko fi laaj ki la ci waaw waaw asalaamaaleykum sëriñ bi ñoo ngi siyaare ay am laa ko waxee ni sa ko laaj mooy dafa am benn bi ñu siyaare sama mbay furaat nag li muy metti metti bu fexewul la ca topp du mujj rek gën a metti bu fekkee nit ki texe ay dara ay dara ay dara jara am na ñoo xam ne jógee ku am na ñoo xam ne seenu texe boo gisee sax ñuy wax mbir mu ramm daañu ci dikk lan mooy ramm ak ku mel na ne ramm ak na ramm di demee texe ci boppam mooy lan texe na muy toll ndax nit ñi seeni wërsëg ci texe na mu ëppante ndax texe am na ñoo xam ne daa daañu leen limaale ci way texe ñi te bala ñuy texe daañu wees sukuraat su metti trayu bàmmeel bu tiis te yàgg dekki sutur nu woo dekki sutur nu woo mooy nit ñi ni ñuy dekkee mu ngi mel ni boroom am am yeeg way ñàkk ñi ñu waaj jëm ci benn béréb bu ñëpp di daje ñi sol mbubb ak tubéy ak dàll ak maxanaak lépp lu ñu aajowoo ñi am mbubb rek ak tubéy amuñu dàll ñi amuñu mbaxana ñi amuñu tubéy mbubb rek lañ am ñi amuñu menn mbubb tubéy rek lañu am ak sous-vêtement ñi tubéy rek ñii dañoo ngemb ñi xaawu fàllay dong ci seen ndigg moo leen di wër ñii dara du leen wër ba bëy yeeg xar yeeg nag yi topp ñoom di leen ree noonu nga xam ne noonu la nit ñi ëppalante ni ñu rawante ci bi ñuy dekki noonu la ñu gën a mettilante ci sukuraat noonu la ñu gën a seddalante ci sukuraat naka noonu ci traayu bàmmeel ma ko waxee ci dekk gi naka noonu taxawaay bis penc ba sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne dañuy xuus ci seen ñaq bu keroogee ba ba mun ak ci seen i tuñ ñi seen ñeq toll ci seen digg loolu lépp di kéemaane yàlla yoo xam ne bu keroogee daf koy feeñal ndax suñu borom tabaraka wa taala meram ci li ñu mën a tudde mer ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe bis booba lay doon ndax bis booba dana mer ba yeneen yonent yi ko gënoon a jege yëpp yi gënoon a xejj ci moom yëpp kenn moom ci ñoom du ñemee dem di ko wax nga ram mu jaam ñi ndax taxawaay bi metti na tàngaay bi metti na ak jaaxle gi tancal tancaloo bi metti na kenn du ko ñemee boobu mooy bisub mer um suñu borom merum suñu borom moom mu nag tabaraka wa taala ci ci texewul mi ngi koy tàmbalee ci bu tàmbalee di génn ba baaraami tànk yi njëkk a commencé sedd mu yéeg yéeg jëm si ci putu nit ba ba muy génn diggante boobu wax nañ ko ci waxtaan yu bare bare bare bare te suñu borom tabaraka wa taala dong moo xam li nga xam ne mooy dox lii xew ci diggante boobu ma ni ndax mën na gaawee ci nit ñi ne benn minute yàgg ci boroom ne junni ak mën na yàgg ci boroom ne weer gaawee ci nit ñi ne ku ñu fetal nga daanu bi ngay daanu rek nga sedd ndax kumpa la ndax suñu borom tabaraka wa taala day dindi jamono moo bindoon jamono li ñu wax distance maanaam espace ak temps daf ko bindaale ci àdduna bi mu ne ولا إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائلنا وبل بند ci suuf jamono ak béréb jamono dañ koy ام ba dootu am niñ ko lalle woon ci bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di rañaan jóge Makka yéeg ci asamaan yi ba dem xasratul quds ci genn guddi wala maa wu yenn am nañ kumpa ba ndax yonent bi sallallahu alayhi wa diggante Makka ak quds jëmmam la waaye diggante quds ak fii ba nga xamee ne ci la dajee suñu borom tabaraka wa taala ruuxam rek a demoon wala gént la te yooyu yëpp dañoo sàggane fàtte ne maanaam li ñuy wax ko de distance ñu ko waxee ci wolof maanaam muy jamono ak béréb yëpp dañ ko dindi dañ koo taxañ amatul mu mel ne noonu la jege waaye teewul nag kenn ku ci nekk muy moom muy alburaax muy jibril fa nga war a yem mënatoo ko weesu ndax sa kàttan àggu fa boo ko weesoo lakk da seey ci leer yi noonu la suñu borom tabaraka wa di lallee jamono yi ak ak yàggaay ci ruux guy génn digganteem ak boroom noonu la koy guddale itam bu fekkente ne aji texee di la ruu gi fi muy tàmbalee génn ci baaraami tànk yi ba ba muy agsi ci putu nit ki mën na am ci yëgub nit ki junni at mën na ci gudd yëgub nit ki gaawe ne xef yi nu bët bu fekkente ne jaam bi jóge na ci loolu ñu tudde sukuraat li tax sukuraat gën a metti ruu ak yaram seen rapport day soppiku waxtaane nañ ko ba tàyyi ci biir dundu nit ki juróomi yoon xam ngeen ne nit ki bi mu nekkee li wax jënin la ko arab di wax dañuy wax fautis maanaam euh, mu ngi ci biiru ndeyam te formeegul bu baax yëgul ci adduna bi dara ndax ruu gi rapport bi mu am ak yaram ngi xatewul noonu ba mu mën a li ko wër du ci xam dara du ci yëg dara du dégg dara du gis dara xam yëgul xiif yëgul mar xamul dara waxtu woo xamee ne rapport boobu changé mu yëg li ko wër lépp di dégg di gis boo ko dompee mu yëg ko bu xiifee wala mu mar xam ko buy nelaw rapport bi dellu changé muy leneen du yëgati li ko wër waaye mu ngi dund mu ngi noyyi bu demee ba ci sukuraat nag beneen rapport mooy am diggante roo ak yaram roo ci boppam gannaaw yaram kenn du ko mbugal mukk tuludul ci moom moom roo ci biir yaram rek lañ koy mbugale moo xam yaram bi mu doon dundee ci adduna la wala weneen yaram bu mu mën a doon bala ñu koy mbugal rek dugal ko ci yaram yomal xiyaam bu fekkente ne itam bi nit ñuy dekki bi ñu daataan dekki seen yaram def na suuf ba raaf ba da nga xam ne kenn mënatu la xam fu ñu ne woon bu roo ñëwee euh, philosophie li leen jaaxal ba ñu dem ba weddi xasrul ajsaad yi maanaam dundaat loolu dafay gudd sax kii mën naa am waxtaan naa ko ci béréb yu bari waaye bi nga xamee ne rapport ruu ak yaram mu ngi soppiku nag soppiku goo xam ne demeewul na nam daan soppiku benn yoon bu gaaw ànd ak nit ki du ko yëg léegi buy fekkente ne rapport baa ngi ñëw diggante ruu gi nga xam ne day tàggoog yaram wi te dootu dellu si ba ak yaram bi nga xam ne day tëddi ca bàmmeel ba xam ne nit ki li mu gënoon a bëgg lépp mu ko fi bàyyi mu mel ne nit koo xam ne béréb bu mu miin mësul a xam benn béréb ci àdduna lu dul bii ñu bëgg ko fee jëlee di ko yóbbu fu mu xamul foo xam ne ay naqar rek fa nekk ak i tiis te mu umpalee foofa naqar benn ngoog ñaareelu naqar yi mu di ñi mu xamoon ak ñi mu yërëmoon ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lépp mu di leen fi bàyyi ruugi bëgg a tàggu ñooñu ñëpp moom ci boppam talatul dara xamul loolu waaye ruu gi moom gannaaw foo jaamu woon yàlla ruu gi dana ko seede te mu ngi yëpp bi ngay jaamu mi ngi koy xam te day marqué ci moom muy génn itam àdduna bërëb yi nga xam ne miinoon na ko yëpp day dem di leen tàggu te tàggu googu mu leen di tàggu day doon ci aji dee ji métit woo xam ne kenn xamul nu mu toll karaw bu doon ci yaram ak pepp wu ci yaram ak pepp deret ak pepp yàpp bu doon ci yaramam day yëpp woo xam ne métit woowa dong bu newoon ci nit ki danay yëg loo xam ne mosu koo yëg bañ ko bindee ba boobu ruu gi nag buy dañ fu muy weesu foofu danay yëg métit wu ëpp fi mu jëm ba muy agsi waxtu woo xamee ne agsi ne fi ñu koy roccee nag mu génn ndax dégg ñuy nettali ba tàyyi malaayika bi nga xam ne bu ñuy rocci ruu gi ci ku texe wala ku texee di melaw wu ñuy dikkaale ak nañ koy bise wax nañ ci introduction masalikul jinaan bi netitu dee noonu sidna omar bi mu koy laaj abdul ahbar ak hadis yi nga xam ne rot na ci yépp waa ji nga xam ne texe na yooyu yépp day doon lu neex ci moom mel ne ki nga xam ne dafa gëmmen dëgg dëgg gëj a nelaw ñu ne nañ ko bàyyi mu nelaw foofu mu nekkee diggante nelaw ak ak yeewu gi noonu muy neex ci moom bëgg a nelaw noonu mu bëggee nelaw bëgg ko ko bàyyi mu nelaw noonu lay bëggee ruu gi génn àdduna ji nga xam ne mooy àdduna yi tiis ji ndax ruux gi day jànloog li ci kanamam lépp bu fekkee ne aji texe la day jànloog la ca kanamam lépp ci texe te dañ koy nëbb lépp luy met bàmmeel bi bu ko ruux gi xool day mel ne ko kër yi gën a rafet ci àdduna mu yàkkam cee dem nit ki noonu bu fekkee ne aji texe la noonu lay yëgee loolu mbëg moomu muy àndal ci texe ga gën a mat noonu lay demee mu li tax ruu gi fi nga xam ne ne nit ki julli woon na fi béréb yi mu julli woon yëpp bu fekkee ne ko jox julli xaqam la béréb yooyu lay ko te bànneex bi nga xam ne mooy jóge ci rukkoo yi mu daan rukkoo ak sujjóot yi mu daan sujjóot mooy yokk xéewal gi fi nga xam ne nag texewul yooyu yëpp ay musiba lay balbatiku doon ci moom fi nga xam nag mooy sabab texe gi texe ci mbindeef xam ne dafa dund ci àdduna ba di ci génne ak texeem ni ma waxee ne mu ngi tàmbalee ci bu ñu tàmbalee rocci roo suñu borom sàkk na jëmm yoo xam ne ndax suñu borom bu mu bindee jaam yi dafa leen a wóotale ni penkook soowu ku nekk xam na ne dañu ne jullit ñi gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar moo ci gën gannaawam Umar gannaawam Ousmane gannaawam Ali mu ne day suñu borom ci li muy defee lu ko sopp yonent bi sama daf daan wax ni inni la ajidu nafas rahmaani min jaanibil yaman mel na ci misaal ci wolof bu ko doon wax ne mel na suñu borom xetam ak may xeeñ ci wet gi fekk booba ka fa nekkoon bokkul sax ci saaba yi mu di uwaytul xaran yi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon saaba yi ni leen ku ko ci gis na ko ñaan loo ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko nangu mbindeef yooyu nga xam ne luñ ñaan suñu borom dana ko nangu day am ba bañuy ba bañuy ëpp bunti tuub ñu ubbee nag bunti tuub la dootul am waaye feek ñu ngi ub bunti tuub mbindeef yooyu am mooy ñi yi nga xam ne dañuy sabab texe ndax sidna Omar ak sidna Alioune ñoo gis yi Qarani biñ ko gisee di ko ñaan loo mu ne leen ku jóge ca Muhammad ibn Abdullahi di ñaan loo kenn te mu ne leen bañ ko ne yonent bi kat moo wax ne ku la gis na la ñaan loolu ndax loo ñaan yàlla def ko mu ne leen waaw waaye Muhammad da yéen gis leen ci moom lu dul takk ndooram ñu ne ko ah ba Aboubacar sax mu ne leen ba Aboubacar sax takk ndooram doo nga la gis waxtaane leen ko ay yooni yooni yoon ñu ne ko waaw yow nag ndax gis nga alxaqiqatul muhammadiya wan ne suñu borom muril na ma juróom-ñaar fukki junni kii raay des benn bu ma si jege woon lakk ni karaw di lakk ci safara ñu nag nga xam ne duñu ay yonent duñu ay shuhada te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bind na gaa ñoo xam ne du ñu ay yonent du ñu ay shahid te yonent yi ak shahid yi dañu leen di ñee yomal xiyaam ñu am na gaa ñi ca bokk te kumpale ñetti ca bokk duñ ko wax sëñ ñu ko wax jaam ñooñu mën nañoo faggul ab jullit ak texe goo xam ne gu dappetoo lay doon gaa yi yàlla yi ñi ko ci wax ñi leen xam xam ne lu ñu wax dëgg la nangu nañ ko ñi leen xamul bu ñu amee maandu ne dara wóor ñi leen xamul bu ñu amee maandu ne dara wóoruma ci bu ñu amul maandu ne amul mënu la nekk waaye weddi moom gis ngeen ni ko Sidi Hadj Mali ñu waxee ne weddi lu gaaw la ci alak nit weddi ak jot li ko la ci luy alak nit ndax kenn mën lam yoxit bi jumla ci sharia inkaar wa lim hëlëkin sharia ndax loolu fépp koo xam ne peeguloo sharia lépp ba xam ko waruloo weddi te sharia moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo nga ko peeg te diggante jaam bu nekk ak boroomam mel ni mbindeef xamu ko lu dul yàlla ak moom la mu ko ca xamal te moom sax du xam lépp ndax da gis nit koo xam ne suñu borom defal na ko fatxu mu jàndoog adduna bépp bépp ak li ci nekk ak lëndëm lëndëm yeeg roq yëpp mu mel ne pepp dugub boo teg ci sa tënk leere noonu ci moom nga gis koo xam ne suñu borom xamalu ko dara dara dara dara gént sax du ko def te ëpp daraja kooka yomal xiyaam fa suñu borom tabaraka wa taala xam ne kon suñu boroom ay kumpaam dafa bari képp kuy weddi nag umpale nga yàlla umpale goo xam ne dara mënu koo weesu ndax bu fekkente ne wàllu yi dafa wax ne yonte yàlla ibrahima bi nga xam ne kat gannaaw muhammad moo gën ci mbindeef yi bañ ko sànnee ca kàmbuk safara ga sama ñaan moo tax safara wa fay koo xam ne faqih rek la du ko nangu mukk ndax baatin la xëy na du ko gis fenn waaye ka ko wax moom xam na ko lu leer ki nga xam ne nag nee na mën naa fàggul ab taalibeem métitu sukkuraat te suñu borom may na ko ko te fàggu na ko fàggul na ko lu rëy bu faboon ndeyam ak baayam ak boppam jaay ko jox ko it du jot mukk xàqam nee ñu sëriñ bu mat sëriñ dana nemmi ko xolu taalibeem ci xasiinu bët bu nekk nangami yoon te buñ koy dugal ci bàmmeel moom moo may ànd te am na sëriñ soo xam ne mën nañoo tontu lay munkar ak nakiir taalibi bi too di ko seetaan kon nag sëriñ mënula la jot mukk taalibi mënu la jot mukk sëriñ ca lam ko mënal yooyu yëpp bunti yërmande suñu borom yi nga xam ne du jeex mukk te kenn xamul nu mu toll Cheikh Abou Yazid Bistami radiallahu anhu mas na di kaf ak moom ndax li ñuy wax albast wal qabd ay maqaama la ci maqaamay góor yàlla ñi albast boo ca tolloo suñu borom daf lay may nga ñeme am xel mu dal bari wax ak moom mel ne koy wax ak nit suñu borom dal di wax bi ci abu yi si ci melowoowu ne ko yow sama jaam bu bon mi bu ma waxoon nit ñi say bon bon kon kenn dootu la nuyu mu ne ko yow it séen ma di ñu bari ji bu ma ko waxoon nit ñi kenn dootu la jaamu mu ne ko ah bu ko wax de mu ne ko waaw yow it bul wax yéeme ne yàlla jooju tabaraka wa taala nga xam ne àjjana la jëmale lépp indi ci tuuti ci àdduna wax na ci ay jaam yoo xam ne wa seete quutul qulubi abi talibin al makki mu ne inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saati lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne bu leen nee buñ ko nee woon bu saa taxaw mukk yomal xiyam dana dana fomm lu doy doy waar la ak nga xam ne nee bu ñu ko ne woon baalal iblis mu baal ko abdul talib bin makki de moo ko wax sequtul xulub gis ko ci kon nag weddi dara ñàkk xam la ndax weddi mooy li suñu borom def lépp man xam naa ko te lii nga wax nekku ci kon weddi naa ko loolu nag kon saxal moo gën a wóor weddi ndax ki saxal benn dafa xam xam gi benn dafa dégg wala mu jàng wala mu gis ki weddi nag gisul déggul xamul dafa gëmul rek ku gëmul nag ne nangam amul ah yow yaa xam yaak sa borom bu ëllëgee ba kumpa yi dañ ba nga xam ne lépp lu lëntoon jaam ñi suñu borom daf koy feeñal ca taxawaay ba boobaa rek leen ku nekk di xam fa nga tollu ak la nga daan jëfe la ca baax ak la ca baaxul lañ ca nangu ak lañ ca nanguwul la nga doon jëfe te mu jaar yoon ak la jaarul yoon bu keroogee te mu boobaa nag dana fekk lépp wéy mënatoo dellu si dabaatal dara ñu wax ne yowmal qiyaam alquran yowmal qiyaam taawil ji taawil ji yowmal qiyaam rek lay feeñ te bu boobaa lu muy jëriñati ndax fekk na jaam ñi kenn toggatu leen jëf kenn santatu leen dara kenn tereetu leen dara bu boobaa buñ ko xamee it mënatuñ ko jëfe wéy na boo seetee téere bu ñuy eh, wax iqtidaa siraatal mustaqim muxaalafatu ashaabil jahim nañu imam malik radiallahu anhu benn taalibeem faatu woon na bi mu demee ci bàmmeel bi nga xam ne ne munkar ak nakir ñëw nañ di ko laaj imam malik daal di teew ne xanaa xamu leen kii ku toll ne kii kenn dana ko laaj bàyyi leen ko ci daal koy bàyyi kon xam ne suñu borom sàkk na ay jaam yu mën ba foofa yu mën ba foofa taayu bàmmeel nag ca mën a fekku jaam ñu baal ko gannaaw moom ku yàlla baal ku dox ba dajeeg moom suñ borom baal la nga jóg ngir moom suñ borom baal la gis ngeen bayit yooyu إذا لقيتهم أو كنت زائرهم من فارقتك الدهر أو زائرهم إذ بالزيارة تلقى كل مكرومة وينتهي باللقاء الفقر والعار ينقم جنكم waaw benn arab moo doon wax ne suñu borom am na jaam ñoo xam ne lillaahi qawmun isa xallaw bi manzilatin wax bërëb bu ñu wàcc xallan na daa tabis tabuk suñu borom gi daal fay wàcc wax alat fil jawwi anwaaru ay leer wàcc ci jaww ji tastaqum kullu ardin yanziluuna biha tépp suuf suñu wàcc suuf si daf leen di namm ni suuf su bekkoor maran di namme taw ñoom sax ñu ngi mel ne ay taw lañu ñeen pàkki suuf yi pàkki suñu borom yi di teg ci ne boo doxee ba dajeeg ñoom isa laqitahum aw kunta zairahum biyum nihim faraqat ga dahraw kenn dootu la bindal bàkkaar diirub jamono feeg yaa ngi dund kenn dootu la bindal dox ba dajeeg ñoom rek kenn dootu la bindal bàkkaar loolu am na solo bayit woowu maam Cheikh ko waxoon sëñ Fallou Mbacke teg ci bis ziyaarati talqa kulla makrumatin wa yantafi bi liqaayil faqr wal aar waaw ndax ci gannaaw kon ci siyaare googu ngay dajee bépp teraanga ndax ñoom ku leen ganale ñu teral la ci baatin wala ñu teral la ci zaahir dajeeg ñoom itam gannaaw moom ñàkk ak gàcce day tax mu dàqu ci yow ba faw lu ama am solo la yaslu bihim kullu man qad kaana zairuhum an walidayhi wala tatu awtaaru sëñ Ibrahima Ndiaye ko ci tegoon képp koo xam ne ziyaare nga leen te xam leen da ngay daal di fàtte sax say waajur waaw ndax waajur ñaar la waajuru ruux ak waajuru yaram waajuru yaram bi yaram bi lay dundal di ko aar di ko faj di ko toppatoo waajuru ruux ruu gi lay sellal di ko tàggat di ko fóot di ko bégal ba nit ki mën a texe moo tax woykat bi ne أقدم أستاذي على حق والدي ولو كان لي في الوالد البر واللطف فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجسم وهو له الصدق جيتلنا سما حق سرين ci sama حق واجر xam ngeen xaqi waajur moom farata la mu mel ne bor boo leb doo jéggi siraat te fayuloo ko waajur yi li ñu daj ci yow ak li ñu sonn ci yow loo war a fay la sëriñ bi nag mel na heure maanaam loo xam ne yaa ko defal sa bopp la waaye nag la mu lay fàggul moo gën li la waajur wi fàggul ndax waajur wi sa yaram wi rek lay toppatoo boo deexee tàggoo ngeen li nga xam ne nag mooy setal sag roo di fàggul ak texe adduna ak alaaxira mooy moom la ñu tuddee waalidu rooxi maanaam baay bi nga xam ne mooy baayu ruux gi te xam ngeen ne yow ma alax ba suñu borom bindee ruux yi te bindagul jëmm yi ba mu ne alax bi rabbikum ñu ne bale yonente bi salaam sama njëkk a wax ruux yu texe yëpp dañoo dal di wax ci coobarewu ruux yu texe di yëpp ñu forcé leen ñu soog a wax ruux gi nga xam ne nag dafa war a texe suñu borom sàkk na sabab ya muy jaar ba texe bu fekkee ne sabab ya mu war a jaar ba texe jaar na ca fokk mu texe ki xam ne nag fàttaliku ne bis boobaa xam ña fa toogoon xam ña njëkkoon a tontu ak ña ñu forcé ñu soog a tontu Cheikh Abdoul Wahab Saarani wax na ko boo seet la taayiful mi nan gis ko nee na maa ngi fàttaliku keroog bis penc waxtaan nañ ko ay yoon bi roo yi teewee te borom bindagul nit ñi bindagul dara lu dul roo yi rek maa ngi fàttaliku ñu doon ci sama kanam ak ñu doon ci sama gannaaw ñu doon ci sama ndeyjoor ñu doon ci sama càmmoñ lépp keroog bis booba laa xam sama ay taalibe bis booba laa leen xàmmee di leen tërbiyee ci baatin ba ñu nekk ci seen bàyyi ma di leen tërbiyee ci baatin ba ñu nekk seen biir ndey yowmal xiyaam suñu borom xamal na ma kenn ku nekk sa place ci àjjana am na ku ne ma dégg ne am na ku ne ma dégg naa ci maam Cheikh mu ne suñu borom nee na ma yow yaag Abdul Wahab Sahraani du wàllu yëpp meloon ni yéen safara gent bis penc ba mu des bis penc ba taxawaay ba Cheikh Abdul Qadir Jilaani wax na ci alxuniyatu li taalibi tariq alxaq boo ko gisee nee na boo ko seetee da nga ko ci fekk nee na yowmal xiyaam ñi nga xam ne dañoo soppante woon ngir yàlla jàppante ngir yàlla def seen bopp ay mbokk ngir yàlla bu yomal xiyaamee taxawaay boobu li muy metti metti ak li muy tiis tiis ñoom duñ ko yëg suñu borom daf leen di yóbbu ci bërëb boo xam ne daf leen di beer ndeel ay xeeti xéewal ak xeeti teraanga ba buñ fa jógee dañuy laajte naan bis penc ba kañ la ñu ne leen ah loolu wéy na weesu na bu yàgg fa la ñuy jaare dem àjjana

Ahmad Lamine Diop Dagana nee na dafa amoon naar boo xam ne bu ragal yàlla la bari jaamu yàlla loolu bis mu ubbi kaamil bi suñu borom wan ko ci loo xam ne dafa niroog gént te du gént mu ni gaay yàlla yi di dugg ci pays bi suñu borom di leen may kenn ku nekk lam la may doy la sëkk ba nga génn nee na Cheikh Ahmadou Bamba dugg bi mu génnee nee na ki doon jàng kaabir nee mu ne ko dama la yónnee ak ci sun borom bo demee ko mbolo mu bare bare bare bare top ci man na yok lim ma may néna mu del mu delu néna sun borom borom yok ko yok ba nga xamné may na ko lu lu doy ñi ko top ñepp ñepp ñepp mu ne ko delul mu wat mu may ko lo xamné daf koy tassaré ci aduna bi sété irwa un nadim bobu da nga ko ci gis kon ñepp tontu ñepp laaj yoyu loolu rek ci bëgg ndax booba sa dégg ci sa conférence yu bari ne suñu borom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yashaa maanaam jaam bi moom bëgg ko yàlla bëgg moo ko jariñ waaye bëgg gi ñuy bëgg sëriñam nag moom moo ko jëriñ lu mu gën a bëgg sëriñam rek di gën a jëriñ ci moom te itam ma gis ci benn ci taalibe yi maam Cheikh bi jëkk yi ñox sëñ Modou Fall wax ci benn xasida an xubbiirahu fataxali jumlal funun min gayri ma taalumin min fil funun mu ni bëgg gi mu bëgg sëriñam boobu di maam Cheikh mbay ci la ko suñu borom bulee fànn yépp ba nga xam ne dafa nekk géeju ci xam-xam way way yu rafet yooyu ci bëgg dara la ko bëggee kon boobu mooy wax taalibe yi kon bu leen gisee léeg-léeg xëy na ñuy laaj ku leen waxtaanal ci seen sëriñ ah ku ñu bëgg a dolliku gën koo xam ndax ñu ko gën a xam xëy na di ko gën a bëgg moo tax léeg-léeg xëy na ñu waxtaan ci maam Cheikh. léeg am ñu may jàmm naan ma yow doo waxtaanee maam Cheikh bi borom moom bëgg bi ko jàmm bi bëgg njëriñu jàmm bi la bëgg gi bëgg jàmm bi la ko rawati ndax wàll yu ñaar la bii bëgg yàlla ak bii yàlla bëgg bii bëgg yàlla du noppal mukk li yàlla bëgg dana noppal dana sonn dana noppal sëriñ bi nag. bëgg gi nga xam ne moom la la bëgg moo la dul jëriñ bëgg gi nga ko bëgg yow moo lay jëriñ kon ku yàlla may nga bëgg sa sëriñ moo tax ñu bëgg nit ku nekk fa mu féete mu jéem koo xam ndax bu amee bëgg gi jëriñu ndax sëriñ bu ma sëriñ ku ko xam bëgg ko te boo ko bëggee bëgg ga moo lay jëriñ tax bëgg nitu yàlla mooy bëgg yàlla gannaaw nit ki bu amul boo foogul woon ne am na yàlla doo ko bëgg kon yàlla tax nga bëgg ko te bis bu la leeroon ne ñàkk na yàlla dootoo ko bëgg kon yàlla nga bëgg moo tax bëgg nag day àgg foo xam ne du wuteeg ndof lu bari yëpp lu ci nekk mu ngi ci kase yi ma wax ko ci bari na lool am na ci xam ne wax naa ko ay yoon ndax bëgg ñu dégg ko lu bari ba mu sax ci xel nit ñi kon bëgg bi xam ne moom la sëriñ bi bëgg taalibe bi جريء قدر موي مسنجر وحي لن تبكر الرم إنك لا تهدي من أحببت ولكن لا يهدي من يشاء فهو رب المعتدين اليوم بجادين يكون فكرت من فوجب سيدنا أبو طالب نحن نفايل ونجعل نتبدون لحل نتكوه وأن يتحو المتوب ضد بيت الإسلام سنجر لك وحي لن تبكر صلى الله عليه وسلم ما قد بقل وأن يسنجر تبارك وتعالى بقوكو سنجر مم موي جبل كوكو صوت yonent bi sa alayhi wa sallam ku ko bëgg texe ku ko bëgg texe waaye du caa nit koo xam ne ku mu bëgg rek nga texe nekkul loo xam ne qaida la buñ mën a wax jongul nag mën naa am ci birab suñu borom def ko te nit ñi xamuñu ko ndax lu ko soob rek lay def suñu borom moom amul ak tënk amul qaida amul fii suñu borom du ko wees wala nii du ko def wala lii kenn xamu ko ndax laa yasalu amma yafaluhum yasaluna suñu borom kenn du ko laaj li tax nga def lii faalun li may yurid la du ko sob rek def ko ba di jàng tawxid daañu la wax li wax mustahil mooy lu mënula am waaye mënula am ci aada ci àdduna ci xelum bindee fi waaye lu mënula am ci yàlla moom amul ci yàlla moom lu nekk rek mën naa am lu mënula am dëgg dëgg te mënula am mooy jeneen yàlla am wala suñu borom ngooram gi mu bokk ko kenn wala suñu borom tële lenn wala lenn nëmmu ko ba noppi loola am loolu moom am moom mustahil la mustahil mooy mustahil dëgg dëgg dëgg dëgg yi nga xam ne nag moom la taalib bi bëgg sëriñam ndax suñu borom tabaraka wa taala xam ngeen ne comme bindee suuf yi indi fi jaam yi ba li tax mu sujjóotloo malaayika yi ci aadama am secret bu mu def ci aadama te nekkul ci malaayika yi secret yooyu du fi jóg mukk yonent bi sallallahu alayhi leeram du jóg mukk ci àdduna jaam ñi dañ koy séddoo ku ci nekk ak la nga ca yeyoo ak la nga ca suñu borom yéene ba nga xam ne leeru yàlla boobu nga xam ne moo nekk ci jaam ñooñu mooy tax ku leen bëgg texe ndax leeru yërmande suñu borom tabaraka wa taala fu mu nekk ku ko bëgg texe ñi nga xamee ne moom mu bëgg la yow leer googu nekkul ci yow moo tax bëgg gëm la bëgg amul jeexit yow mi nga xam ne nag yaa bëgg ki nga xam ne jeexitu leer googu mu ngi ci moom te loola jóge ci yàlla te yàlla ku ko bëgg texe loolu moo tax taaliba bi bëgg gin mu bëgg sëriñam moo koy tax texe ndax lu tax mu bëgg ko yàlla doo nga tax mu bëgg ko ni ma wax sànq ne bu dul woon yàlla du ko bëgg bu xamoon ne amul yàlla it du ko bëgg xol bi mu ko bëggee bëgg gi mu ko bëgg mooy bëgg yàlla bëgg yàlla nag mooy sababu texe kem ni nga bëggee sëriñ boobu ak ni maqaamam toll ci yàlla dafa texe di toll waaye xam ngeen ni ak texe jëf dana ko yokk ndax boo gisee ne jëf waxtaan nañ ko ci ay conférence jëf dana rëy te dana tuuti fekk mu rëy te lu ko rëyal waxtu wañ ko jëfee tax mu rëy wala jëf ji tuuti te rëy loolu façon borom te lu tax mu rëy bërëb bañ ko jëfee tax mu rëy jëf danga doon mu tuuti tax fekk mu rëy ci yàlla lu tax mu rëy xanaa kañ ko jëfal moo tax mu rëy wala la tax ñu jëf ko wax naa leen léegi bu ñu nee saxaaba yi seen jëf ni picc mi ñuy wax printemps gën a gaaw ci picc yi ni mu gën a gaawee mellantaan wuy dox ci suuf noonu la jëfi saaba yi gën a rëy jëfi keneen ku dul saxaaba yi am na nag ay exception waaye loolu mooy li nga xam ne mooy qaa alqaidatul amma lu tax loolu moom ñooy ñooy ñi nga xam ne gannaaw yàlla ñoo tax lislaam taxaw ba nga xam ne ku julli wala nga woor seen coono yooyu ñu sonn ñeefar yi bañ ñuy xeex ak ñoom jaay seen bakkan ba lislaam taxaw ba agsi ci yow tax ngay jullee ko woor sa julli googee sa koor googee daañ ca am lu toll ne la nga ca am ndax ñoo tax nga def ko budul woon yow budul woon ak ñoom yow doo ko def nodd nag bu njëkk gi moo war ñu déglu ko ñu di ko ñuy nodd ngay wax dana waral sukuraat su metti dana waral jëf ju yàqu waaye nodd bu njëkk gi bu weesoo gi ci topp bu fekkee nit ki mu ngi wax farata mën naa continuer bu fekkee nag <coughs> euh, ñooñu nag fa ñu jëfee kenn jëfewu fa lu dul ñoom loolu moo réer jëf ji naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku fàttaliku yàlla ci diggante mbooloo moo xam ne ñëpp fàtte nañu yàlla yaa ngi mel ne ku nekk ci jihaar ñëpp daw ñuy xeex ngir tëral lislaam yow nga taxaw di xeex ba mu jeex bu ko defee nit ki nga xam ne mu ngi ci mbooloo ñëpp am lu leen itteel ñëpp fàtte yàlla mu fàttaliku ko moom jëf joojee mu jëf lam fàttaliku bu tuutee dana réy fi yàlla nga dem ci béréb boo xam ne ku fa dem fàttee jaamu yàlla kenn xelam du dem ci julli nga julli fa li ki rakka yooyu ñuy wax ci sëñ Touba ci géej géej naka noonu nit ki am tiis woo xam ne lu ma junni ci nit ñi bu leen daloon du ñu julli wala daañu tàdde julli bi wala duñ jullee nañu war a jullee nit ki daan ba kanam ba def ko julli boobu ak julli rekk la ñeent rakka wala ñett wala ñaar buñ koy fay daañu ko fay fay boo xam dina ëpp fukki junni julli ndax jamono jam ko defe moo tax nga fekk su fukki dërëm nga jox ko nit ku ordinaire kii amee ñaari dërëm jox ko nit yàlla dëgg jublu ci ngir yàlla jëfam jëmu jëf gën a rëy sa jëf ji lu toll ni diggante asamaan ak suuf bu ko waral ñu ko jëfal ak li tax nga jëfi ko nga toog am seet nit ñi nga xam ne dañoo mat amuñu yow yàlla jox la nga woo nit koo xam ne xam na ci moom ak ragal yàlla akuk lot nga bokk ak moom sa alal wala nga yëkkati lu rëy jox ko ngir yàlla nëbb ko sa jëf jooju rëy na li ko waral ba tey ki ko jëfal a tax ci ki ko jëfal ndax dañu ne wa luqmatun tasud batna jaay afdal min binaay alfi jaamee benn tibu ñam boo def ci biiru aji xiif yoo xam ne jullit la moo ëpp yool tabax junni juma xam naa ne mag ñi dañ daan wax ne bu jënax tëbee ñu ne jënax ji de mu ngi toll ne nag bu tollu tolluwal ne nag rëy na lool kon kooku nga xamne fekk na ku xiif mu jox ko lu mu lek jëf na jëf ji rëy ndax suñu borom tabaraka taala dafa ne jamm bi yow day tawat na set ci woma mu ne ko yow rabbul izzati na ma lay set ci ak loy tawate mu ne ko sa mbokkum julit diw sàngam tawat na seti woko boko seti won fekk ma fa xiif na leeloo ma yow rabbul izzati na ma lay leele diw sàngam su mbokkum jullit ñi xiif na boo ko leeloon leel na ba mu àgg ab xista la boo xam ne xadis la yonente bi sala sama ko waxtu gàttal def naa war nañ ci bàyyi xel kon buñ jullee ba noppi xaas ci moom de laaj yi wala ci laaj yi naan waaw ñu dellu ci laaj yi bëri kii gannaaw dañuy delluwaat fee yem na ci laaj yoo am solo yoo xam ne nit ki lu mu umpale ci diineem bu xamoon dana xam ne jar na ci moom doxe fii ba gànnaar dagan na ndax nit ki dafa war a xam diineen ndax bu ko xamul kat lu man fi moo ko teg boppam ndax mu nekk moom xam sa diine yomb na rajo yaa ngi fi télévision yaa ngi fi jàngkat yaa ngi fi sëriñ kaan bi koo laaj it mu wax la kon xam sa diine gannaaw farata la war na nit te jullit bu ne lañ koy laaj war na ko xam ne dafa aju yow yaa ko war a xamal boroom kër gi moo ko war a xamal soxnaam waajur yi moo ko war a xamal doomam ndax nit ki bokk na ci yi muy layoo ak doomam ëllëg ba ma waree dal jàng dalaloo ma jàng ba ma juddoo juddoo tuddee ma tuubaa bari euh, yoo xam ne lu euh, doom ji di layoo euh, bàyyam la bu yemal xiyaamee te bu ko yeyee du jekkale fekkee ne nag fàgg woon na loolu du ko yey kon nu kon fàgg yi ngeen defal ñu ñu julli léegi jigéen ñi ma ree loolu ci gannaaw ndax naa bay ci man. est-ce ni mat na ko kon xerum nit ñi ak laaj yi daje dana bari bari waay goo xam ne foog ñu di ko segg di seet kaset yoo xam ne mosu ko cee wax ak yi ëpp njëriñ ci doomu aadama yi mu tànn ko bu ko defee laaj ko mbooloo mépp mën cee jariñu kenn ko laaj boo dégg même boo xam ne ni du so bu mënee jëriñ jullit ñëpp rek ñu rafetlu ko léegi nag euh, dañoo dajewoon ci bëccëg asuntal laaj xam ne war naa mat ñeenti laaj euh, bii moom nee na gannaaw nuyoo bi ak ñaanal sëñ bi mu yàgg fi lool dafa gis ne àddina bi yàqu na nit ñi nee na ñu bari réer nañ lool lu nekk ñu ngi koy wax euh, ci rajo yi ak di ko bind ci téere yi léegi nag nit ñi xamuñu fu ñu jëm ñu bëgg ku ñu gindi ci laaj yi bi jiitu nee na ndax war na ni ko waa rajo yi di defe maanaam boole ko ci boole boole boole wërd ci ñëpp wala di ko bind ci ay ay téere muy laaj ndax loolu war na wala ndax wóor na waaw maanaam wird joxe ci téere yi neen ak rajo yi waaw waaw nga xam ne dañ ko dañ ko yemale pour mboolem amatu naas bi rek julli doomu aadama yëpp waaw loolu ndax lu war la wala ndax wóor na waaw waaye jëm ngeen laaj bi nim wax ne wir yi ñu joxe ak tur yàlla yi ñu di ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ndax yoon la ndax lu war la wala nu mu demee tur yàlla de ñaari xaaj la liñ tuddee al isnul am ak li ñu tuddee al isnul xaas al isnul am mooy suñ borom ni mu santaanee ku koy fàttaliku di tudd turam ni mu tagg gaa ñi nga xam ne dañoo saxal turu yàlla ci seen gémiñ di ko taatanu it ci seen xol muy dugg seen biir xol ñi di ko yëg mu ne allazina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك mu tagg gaa yi nga xam ne dañuy tudd yàlla moo xam ci seen lan wala ci seen xol dañ koy tudd waxtu wu ñu taxawee daañu taxaw di ko tudd daañu tëdd di ko tudd daañu diju di ko tudd suñu borom leen udkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni na ngeen may fàttaliku maanaam na ngeen may tudd ma di leen fàttaliku suñu borom du fàtte bay ko waaye maanaam li mu tekki mooy mu jëf leen teeg yow jëfi ku la fàttewul yooyu ndigal la yoo xam ne dañ ko digal jullit ñëpp jullit ñëpp digal nañ leen tudd yàlla te tagg na suñu borom tagg na ñi nga xam ne dañoo saxoo di tudd yàlla fu ñu toll rek bërëb bépp boo xam ne bërëb bu laab la bu ñu terewul ku fa tudd yàlla ni ki bërëb yi ñuy wax fi nit ñi demee doxe seen faje seen aajo maanaam euh, kanifa yi mooy duus yi daal araam na ku fa tudd yàlla boo amee jaaro boo xam ne sax bind nañ ci turu yàlla da koy summi bala ngay dugg boo amee gàllaaj bala ngay dugg da nga koy summi wala maaw yi am nañ ci ay wax ñeen ñeeñu bu fekkee na dañ koo muur ni ki nu ñu ko dañ koo ëw ak der dagan na nga duggaale ko am na ci ulama yi ñoo xam ne wax nañu loolu waaye itam ngay summi ko boo ko mënee ba tey moo gën a sell waaye boo ko dugalee ka nga xam ne itam dañ koo ëw der muur ko itam nee ñu bàkkaar nekku ca xam ne kon tur yàlla jullit daf ko fonk ba nga xam ne dafa jaxasoo ak dundam ci lépp loolu mooy ak isnul am li ñu digal bépp jullit suñu borom moo ko digal bépp jullit boo ko defee tuyaabaam bari na lool al isnul xaas nag mooy ndigal loo xam ne lu particulier maanaam lu ñu jagleel ñenn nit la ndigal loolu na mu demee jëmm joo xam ne دافاي عارف بالله بن سيدنا خضر جوخو تور ولا ملائكه جوخو تور ولا مو جيس يونس صلى الله عليه وسلم سي گنت مو جوخو تور ولا مو جيس كو جهرا مو جوخو تور سي گنت ولا كو كان كو خامني سي كان سي ньоญو مولا جوخ تور وي سكال لم بوتي يم muy nga di ko sikkar sax ca saxoo ko muy fóot sa waaye ŋàññi nañu tur yàlla woo xam ne da nga koy tudd ngir yokk wërsëg wala ngir am alal wala ngir am teraanga da ngay tudd yàlla namm ci jëmm yàlla rek boo ci nammee jëmm yàlla rek am na àgguwaay boo xam ne boo ci àggee suñu borom notal la mbindeef yi ñuy faj sa aajo wala mu yokk sa wërsëg wala mu barkeel sa lépp wala mu faj sa aajo al ismul xaas boobu nag day jóge ci aarif billahi aarif billahi mooy kan mooy ñi ma waxoon ki nga xam ne ndax malaayika yi am na ci nit ñi ñoo xam ne malaaka la malaaka moo leen di tërbiye tarqiye leen ba àggale leen ci yàlla am ñoo xam ne sidina xadir moo leen di feeñu tërbiye leen am na ñoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam wala kenn ci ñeenti saxaaba yi bu fekkee nag benn aarif wala kenn si ñooñu ma tuddoon moo la jox tur wala koo xam ne ñoo ko jox kooka ba kooka joxaat keneen di ko jox lante ba mu agsi ci yow mu jox la ko jox la charte yi jox la lim ba wax la waxtu waxtu yi nga di ko def te bàyyi woo ko insha allah da nga àgg ci yàlla ndax tur woo xam ne al ismul xaas lañ la ko joxe ak wum ci mën a doon day fóot xolu nit ki ba mu gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi weddi naan kenn mënu la gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ñoom day xam nañ ne ñoom gisuñu ko kon te xamuñu it ko ko gis waaye bu ma génnoon jaar fii dajeeg bukki wala gaynde bu ma ñëwee bu ma nee daje naag gaynde wala daje naag bukki man de dama wóor man ñi nga xam ne doyloo nañ ma ba xalaat nañ ne lu ma wax dëgg la ñoom daañu ko gëm ñi ci des duñ ko gëm bu la maa won ma bukki bi bukki ba dem na la ma leen koy wane mel ne rek ki mos suukar si kii moom mosoo gis suukar mosu koo dégg nga mos suukar xam ni mu neexee mu ne la wax ma nu mu neexe noo koy wax dog ko mën a misaal ak yëg lay doon loo xam ne da nga koy yëg ci sa xol moom mënuloo loo nit ki loola te jaarul fa nga jaar ba àgg fa nga àgg al ibnu xaas nag day fóot xol nit ki ba nga xam ne benn xalaat bu jëmul ci yàlla wala bu jëmul ci luy defar wala bu jëmul ci dimbali wala xettali wala yàqulu defar du dugg ci xolam ci istidad boobu ngay mën a gisee sallallahu taala alayhi nga gis malaayika yi moo gën a yomb nga gis yonent bi bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon nii ngeen di mel bu ngeen toogee fi man may waare ngeen di ma déglu bu ngeen doon mën a wéyee noonu maanaam fa seen xol ak seenug yëpp ni muy mel ci bu ngeen toogee sama wet ni may waxee ngeen di ko dégloo noonu ngeen sax ci noonu melo mel muy seenu melo da ngeen di nuyoog malaayika yi saxaaba yi ñu ci bari def nañ ko Imran ibn Husayn dafa daan nuyoog malaayika yi di wax ak ñoom benn bis suñu borom nattu ko ndax xam ngeen ne maqaama yu soree ku ca àgg suñu borom dana la teg ay tiis toujours suñu borom teg ko benn taab boo xam ne dafa ko sonal guddi bëccëg bu nelaw di metti ñu ne ko da koy gàjj mu wér gannaaw suñu borom ak ko tegoon te fi mu tolloo tax mu teg ko mu dem gàjj ko tooñ ne gisatul malaayika mu di ko jooy di ko naqarlu di ko métitlu yàlla dogal taab gi daraat ko mu bañ koo faj ah suñu borom di ko di ko ti malaayika yi ki nga xam ne mu ngi gis malaayika yi bu continuer ci li mu doon sikkar di ko wérd ba mu yàgg dana gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nag jafe na te maqaam mu sori na àgg soog ko ndax boo ko jafee dootoo yàqule mukk dara dara mënatu la yàqal boo xasee gis yonente bi salaam dara mënatu la yàqal dina moo tax maqaam mu kawe la tur yàlla dana ci yóbbu nit waaye nag buñ la ko waxee buñ ko yombalee nax nañ la buñ ko gaawalee nax nañ la day sax ba muy dindi gépp bëgg àdduna gépp bëgg daraja gépp noone ñu di diw def na ma nangam yéene naa ko lu bon wala danaa fay wala danaa def nii lu tax mu di ba def nii yépp day dañ saxol ba set leer yonent tibi sallallahu alaihi wasallam soga mu ne dugg ci sa xol kon tur yalla waxtu tur wu mu don rek ci al iznul am tur wu mu don rek nit ki diko sikkar ni te yalla tax te yalla tax dana fóot xolam dana ko womat jeme ci ngëm yok ngëm tur yalla yi nag dafa gis am na lu muy bañ ak lu mu bëgg bul ñàkk laap diko tudd bu ko tuddit te doo teewlu bu ko nam bu ca namit benn njëriñu àdduna naan tur sàngam téere yi nee ñu boo ko dee sikkar da ngay bari wërsëg wala boo defee nangam la kii yooyu yëpp day dox day dox nit ki ci yàlla day dox diggante ak yàlla du ak yow yàlla taxul ngay wird li tax ngay mooy lan mooy wërsëg àdduna tax ngay wird mën na alak nit mën na yàqal nit mën nga wird di téeméeraat doo lañ la waxoon doo ko gis doo ci dara pour yàlla kon الاذن العام دا ام الاذن الخاص ام الاذن الخاص موي ادال نيت سي يالا الاذن العام دا نسيتال خلو نيت دا نكو ديف جولي دغ موي كيغا خامني دا فاي سكر سخوكو تا ديكو تيول تا يالا دونغ تاخ دا نا ام لو خامني كي كو سكرول دوكو ام سي تيابا سي تيرانغا سي خيوال سي موتش يالا نك بو سي جيمي فوك نغا ام نتو فوك نغا ام تيس benn waaye dafa ne woon yonent bi sallallahu alayhi man daal ku la sopp laa mu ngi ko séenul fitna ak musiba keneen ne ko man de ku sopp suñu borom tabaraka wa mu ne ko séenul ñàkk ak coono waaye nit ki nag bu fekkee bëgg na yàlla si kër yooyu ñu wax ak jaamu yàlla yooyu tax xol day xiif di mar di ràgg di tiim xol bu tilimee dañ ko war fóot bu tawatee dañ ko war faj bu nelawee dañ ko war yee nan nga koy defee lu baax bu ca xeb lenn foo dégg ñu ne daañu fa waxtaane lu baax nga déglu ko te jéem ko jàpp foo fekk lu baax nga dugg ca foo fekk lu bon nga daw li la lislaam digal lépp nga di ci def li nga mën lépp ñàkk googu yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ak musiba moomu ak tartar yooyu da ngay dem ba mu neex ci yow da ngay dem ba mu neex yow ndax bu la dalee da ngay dal di biir bu tuuti rek nga dal di jànloog li mu lay indil nga gis ko jahran li nga daan gis ci sa xol da ngay dem ba di ko gis sa bët nga xam ne bu adduna bépp daje woon ne la li ngay def jëriñu dara du jëriñ dara it da nga leen di ree rek waaye du tax nga am benn tomb sikki sàkk ci yow li nga xam ndax daf lay wóor ne yow gis nga te ñoom gisuñu ki gisul la muy wax ki gis ki gis du ko war a faale waaw kon mm, gannaaw jamono bi dafa gàtt laaj yi defe naa xaw na bari ci mbirum tur yàlla loolu lañ ci doon wax am na al ismul am ak al ismul xaas yàlla ki moo la koy jox wax la ñaata nga koy def kañ nga koy def lu tiis la nag diggante bi loolu da ko fi gis fu ne da nga fa jaar lu doy waar la waaye nag kii joxe tur yàlla mu mel ne docteur bi rek ñu koy faral di misaale docteur bi xam na ban jàngoro la dal xam na li koy faj xam na waxtu yu muy metti yi mu lay metti ak yaxtu waxtu yi nga xam ne danga am jàmm ko defee it fekkente ne ku ñuy tarqiya la waxtu woo xam ne gis nga lu mu xamul day dem ci aarif bi ko joxoon tur yàlla bi ko nangam ak nangam ak nangam lay yëpp mu ne ko doxal defal nangam defal nangam defal nangam loolu daal di dañ loolu moo tax cheikhu tarbiya ngir àgg ci yàlla mënu la ñàkk cheikhu tarqiya mënu la ñàkk ndax cheikhu tarbiya war naa xam jamono xam xeeti réew yi ak la fa nekk xam biddew yi asamaan yi lu ñuy jeexital ci suuf ak lu ñuy jeexital ci nii lu ñuy jeexital ci gàncax gi xam yàqu-yàqu yi forme yi muy dikke ak fa muy jóge ak na muy dikke ak la koy fekk ak la koy dindi cheikhu tarbiya dafay war a xam nit ki nga xam ne bu àndoon ak fukki nit ñëw ñi nga xam ne médecin bu leen passé visite kenn ku ci mu xam sa jàngoro xam ne bokkale wuñu seeku tërbiya bu la nee jàkk rek war a xam luy sa jàngoro bu dee bëgg àdduna bu dee rëy bu dee tayeel bu dee bëgg lekk bu dee bëgg nelaw bu dee bëgg daraja bu dee bari ak bañee di bañ nit ñi ci lu tuuti lépp mu xam ko xam la koy dindi kooku bokk na ci charte bi seeku tërbiya seeku tërbiya nag moo féete kaw loolu waaye ci tur yàlla bi rek lañ doon wax euh, ki lay tërbiya moom fokk li ci a bari dana benn mu jox wala mu liggéey loolu lépp nag dafay waxtaan yu xóot xam ne jamono bi duñu may ñu àgg ca kon euh, laaj bi ci topp waaw moom nee na ndax euh, sëriñ am na ndax nit moom maanaam na moroomam dara am déet di leerlu ci ba tey ñaari aaya yi al yawma laa tamliku nafsun li nafsin sayun آه، الى اخر الايه اه اك آه، لا تسرو لا تسرو واسره اخرى واو اخرى واه واه السلام عليكم لا نك بي مو ندخ سيرن امنا سيرن امنا sëriñ am na. sëriñ am na ndax euh, daf lay leer ne mënul ñàkk. adduna lu mu ci doon rek lu mu ci doon rek la doo juddu xam ko wala nga mën ko te aaji ko la teqantal yonent bi sallallahu taala alayhi wa am na ñaari sëriñ kenn ki mooy jibril alquran fa tàmbalee ba fi mu jeexee seydina jibril moo koy indil bu gisee ci kaw suuf lu mu jaaxal lu ko jaaxal Seydina Jibril la koy laaj ba ba mu demee ba ëpp Jibril xam-xam mën koo jàngal fukki junne at te Jibril bi jeexal li yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam waaye bi mu daataan àgg foofu Jibril moo ko daan jàngal bi ko Jibril di jàngal lépp it suñu borom wax na ko ci alquran ne ko wa tabi millata ibrahima hanifan millata abikum ibrahima huwa sammakum muslimina min qabl na nga topp yoonu ibrahima di ko dogu wat ci lépp luy mbindeef jëm ci bind yoon woowu Ibrahima moo ci njëkkoon a jaar nekk xaniif xaniif mooy koo xam ne bàyyi na lépp lu dul yàlla jox dundam gépp yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam Ibrahima di maamam suñu borom ne ko toppal yoonu Ibrahima toppal yoonu diwkaay te day kooku sëriñ la saxaaba yépp yonent bi salaatu wasalaam mooy seen sëriñ liñ xam lépp moo leen ko xamal bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee saxaaba yi mboolem lu fi ñëw ci xam-xam ci saxaaba yi la jóge kon ñoo jàngal nit ñi ndax ci xaddis yi xaddis yi mënu xamal lislaam ndax alquran mënuñu ci génnee suñu diine alquran dafa naan jullil rek waaye duñu wax waxtu tisbaar kañ lay jot duñu wax ñaata rakkaa leen koy julli duñu xamal ndax dañ ko war a biral wala dañ ko war a yelu moo nuy xamal noonu wax